Seydina Omar Ba ci la revue des titres. monsieur le maire ñu door euh, jukki euh, euh, li ci yéenekaay dooree ko ko Walf Quotidien waaw Walf Quotidien dafa xëyee fësal waxtaan wi yaatu yi nga xam ne seq nañ ko kii di Mame Boye Diaw doon kenn ci candidat yi nga xam ne taxaw ngir bokk ci élection présidentielle yi di ñëw moom Mame Boye Diaw ci journée gi président Macky Sall wax ne lan moo tax mu sant dina fas wax tamit ambition wax na tamit slogan bu bees bi nga xam moom la indi moom mi nag di Mame Boye Diaw kon waxtaan wu yaatu loo xam ne dafa seqoon ak euh, Walf TV ak suñu ak Walf euh, yéenekaay leneen tamit loo xam yéenekaay gii di Walf Quotidien xëyee na ko fësal kon ñu reprendre ah. ñëw na <laughs> waaw Walf Quotidien dafa xëyee fesal euh, euh, waxtaanu yaatu wi nga xam ne seq nañ ko ak kii de Mame Boye ci laaj dox kon dox ci diggante mag euh, suñu ngooy nekk ci Walf TV Walf yéenekaay leen itamit loo xam yéenekaay gi Walf Quotidien xëy da ko fësal mhm. te moo di ubbiteeg ubbiteeg l'école yi lée mu nekk nag ubbiteeg goo xam ne nii daanaka bari loolu ay jafe-jafe rawatina nag fële ci diwaanu Ziguinchor ndax foofu donte la école yaa ngi ne gaañ waaye jàngalekat moo fa amatul noonu la ko yéenekaay gi di Walf Quotidien xëy fësale yéenekaay gi di critique xëy dellu sax élection présidentielle 2024 yi ñu dëgmal am na Euh, ñu ngi fare ci coalition Benno Bokk Yaakaar donte sax déggu leen waaye ñu si bari si ñoom ñu ngi boot jamono ci ginnaaw Aly Ngouille moom Aly Ngouille sax ëllëg incha allah yi euh, ci la ko yéene kaay gii fësale a leen itamit loo xam ne yéene léegi xëy na ko fesal te mooy pétition bi nga xam ne ni taskatu xibaar bii di Oumy Ndour lancé na ko ngir xeex ak yokkute njëg eh, njëgu facture yi noonu la ko yéenekaay gii di yor yor xëy fesal la <laughs> ñu ñëw ci réew mi ko titiyee kuy xalam da titiyee barke ba yaay borom sunu ñaari naataangoo leen <laughs> dafa xëy dellu ci campagne commercialisation agricole 2024 te moo di campagne jaay ak njëndum gerte gi Euh, Moustapha Ba mi ministre de de de l'économie et des finances neen daal yéenam ak bëgg-bëgg mooy am lu ci solo téeméeri milliards su ko defee. seen campagne boobu la doon lu a mucc ayib yéen kaay gi ci loolu xëy dellu soir yéen kaay euh, ko doon jébal borom moom euh, kii di président euh, démb daal lañ ko doon jébal borom noonu la ko yéen kaay gi di réew mi xëy ko defee daal campagne bi mën a jaar yéenekaay fu mu yéenekaay gi di laas ne Moustapha Ba xam ma leen leeral ne euh, li euh, maanaam euh, relation gi dox ci diggante nguurug Sénégal ak banque yi le ñu bari dañ yaakaar ne dafa am ah, xaaj xaaj ah, ah, xam gu ci am waaye loolu dara amu ci wante tamit ci bor bu bari bi nga xam Sénégal lépp na ko jamono ji ak campagne ay ngënum gerte gi le Moustapha Bakone yëkkati kàddu yu ni mel ne doon na ko seeq démb ak taskati xibaar noonu la ko yéene kaay gii di laas xëyee fësale yéene kaay a xëyee amal ab taxaw seetlu yaatu jëmale ko ci njob soble bi le nee na soble la boo xam maanaam mooy secteur boo xam ne gouvernement bu Sénégal pour maîtriser ko Euh, njëkk li daal jóge na daanaka ci 400 francs dem ba ci 1300 francs donte sax gouvernement bu Sénégal waaye waaye mbir yi tey ji la wàllu gën a ay yéen kaay ci tollu xëy di lu soit lu jëm ci koo xam ne ni loolu la xëy tey ji 24 euh, heures yéen kaay tey fu ci ndaje mu yaatu mi nga xam ne waa Forum Civil amoon nañ ko démb doon wax situation dëkk bi wax nañu ci liberté yi nga xam jamono ji dañ ko confisqué kenn ñamatu manifester kenn ñamatu wax mu nekk la loo xam dañ koy métti lu wax na aussi ci euh, sàkkoon ci taskati xibaar yi ñu gën a professionnel ci seen wàllu liggéey mm. euh, mu nekk na ab constat goo xam ni waa forum civil def nañ ko démb ci ndaje mu yaatu mu doon amal mm, Sud Quotidien Euh, ubbiteeg ubbi tey jàng tey bi doon wax finalement mujju bu fekkente ne am na ci privé yi waaye amul ci public bi le waral moo di ci jamono ji nga xam ne ni kon privé yi ñoom ña ngay def seen kéemtalaay kattan ngir tàmbali seenum jàng ci jamono jële boo demee ci public moom ña nga ci ay inscription mm-hmm. mu nekk nag loo xam ni doy waar la tax yéen kaay gi sur côté xëy tey ji daal di fësal ne ubbi tey jàng tey moom doon lu mën a ne jamono ji fii ci Sénégal sàcc oto ña ngi koy sàccee ci bitim réew ñëw di ko dugalaat fii ci biir réew mi gars nag def nañ seen enquête ba am na ñu ci teg loxo cerveau bi nag nañ ab sénégalais la mbir yi ma nga amee fële ca Paris noonu la ko yéenekaay gii di la peuple xëy fësale ñu dem ci euh, l'info chiffre waar moom la ñuy fësal mu soxool cancer col de l'utérus l'utérus mu nekk nag euh, cancer boo xam ne nii daanaka la muy far ci ay doomu aadama kenn xamut nu mu tollu Euh, tax yéen kaay gi xëy dellu si waat si ñoom daal la ñu bëgg mooy bu fekkente ne bëgg nañu feebar bi gën a deltu ginnaaw foofu xale yu jigéen wala jigéen sax di nangoo dem di xool seen yaram mm. ndax lu ko mooy kat jàngoro ji moom dafay gën di eh, seex ay jéego ndax gis nañ ne at mu ne daanaka lu ci toll ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak benn doomu aadama daañ daañ ñàkk seen bakkan ci wopp ji di cancer noonu la ko yéen kaay gii dañ lay foo xëyee fësal génnuk àdduna kii di Momy Seck Euh, di soxna ci patron bu Sen TV Bougane Gueye Dany nekk tamit rakk ci Thione Seck euh, ci kii di Wally Seck di doom ci Thione Seck di ki démb ci la wuy ji boromam démb tamit lañ koy jébal boromam fële ci almeeru Yoff ya euh, mu nekkoon nag moom. dem ci tribune yéenekaay. gi di la tribune moom ci loolu xëy dellu si waat nee nañ au revoir maman ndaxte ñoom dañ ko jàppe woon comme seen yaay. Mm-hmm. ndax donte la moo jiitu woon kër ga waaye dañ jàppoon Euh, jigéen la woon joo xam daal daanaka dafa tëddee woon jaaxaanaay ñëpp la yemale woon ci biir kër ga. Euh, tax Bougane Gueye Dany yëkk ay kàddoom daal di am ay seede ci moom ne am na yaakaar xel am xel daal bu dal ci soxna moom yi. Mm-hmm. Khalifa Sall aussi am na ci ay seede yoo xam yëkkati ko ci moom docteur Abdourahmane Diouf kazalika Simon Faye nekk si Zik FM am na ay seede yoo xam ne yëkkati ko jëmale ko ci soxna si nee na soxna soo xam ne dafa amoon yërmande soxna si efficace la woon soxna daal soo xam ne su wàcc woon boppam la daanaka boo ko fekkoon ci kër gi sax doo doo mën a ràññale kii directrice la waa am noonu la ko yéen gi di tribune xëy fësale Fatou Abdou Ndiaye aussi wax na ci moom Evelyne Mandjouba ñaanal nañ ko daal yàlla na suufa si yof soo woyof tay ci eh, kawam te yàlla xaaree ko ci aljanna yi ko témoon aljanna yi fi daw si amiin yaa rabbi ñu dem ci stade yéene kay stade yéene kay dafa xëyee dellu siwaat ci mm, euh, Saudi Pro League tey ji lañ koy fas yéene amal bu di jotee muy dox ci diggante al Ittihad ak al Ahli Benzema di daal ak Mendy fukki ar weer ak juróom-ñetti gannaaw ba nga xam ne nii ñoom ñaar ñi gisewuñu ndax bu ñu ko ci match bi nga xam doxoon na ci diggante Real ak Chelsea mu nekkoon Ligue des Chelsea Real Madrid kii Benzema mi daanaka daal bokkoon na ci ñi tax sax Edouard Mendy jóge Chelsea ndax bal yu bari ya nga xam moom la ko dugaloon yéen kaay gi jàpp ne tey ji nag revanche lay doon ci diggante ñaari sóor yi noonu la ko yéen kaay gi di stade moo tax Ama jamono ji ma ngay changé ay lieu d'entraînement ma nga woon Malika ba gars na ma nga Malika mu raxu dem Ama Baldé ma nga fële ca Mboro installé fa am doole noonu la ko yéen gi xëy fësale mu nga ko <laughs> xarit Seydina yi les lutteurs. en tout foofu yi de moom boo ko moytuwul moom. lamb ji ak ay réalité ay réalité la am de. Mhm. ko ci nekk moom da ngay kii sa sa sa bopp rek. alors euh, Seydina sunu sunu sunu gan il vient de nous rejoindre sur le plateau et c'est pour euh, parler de santé. Euh, comme nu ñu koy euh, defee àjjuma gu jot euh, ñu ngi fii ak Mame Khady Diéry Fall également pour gérer la rubrique santé Mame Khady maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay Juma Mubarak à merci beaucoup Aïcha sama binôme de Gamou. oui mm-hmm. maa ngi lay nuyu di nuyu également ñi nga xamante ne bi ñoom laa bokkal bile plateau Salman docteur Dieng ak Seydina Omar Ba di nuyu également ñi nga xamante ne bi ñooy xëy fajateer dañu xaar. Mm-hmm. ngir suivre bile émission. ñu ñu ñu ñu passé tamit d'excellent Gamou vraiment en compagnie de Zeyda Nabou Nabou Niass Zeyda Nabou Niass remercier encore une fois ak euh, ñi nga xamante ne bi ñoom lañ fa ñoom ñëpp mhm. gàmm gi neexoon na saa su voix feeñ sa kanam oui seetlu nga loolu <laughs> gàmm gi la seen leer bi moo ñëw si man <laughs> alors ñu ngi fii ak euh, docteur euh, Papa Massamba Diène moom il est cancérologue sénologue et membre de la LISCA moom moo ñëw tey ci rubrique santé ngir apporter sa contribution par rapport ak mois du cancer di euh, octobre rose euh, docteur Diène ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal ci euh, réveil des sans voix. maa ngi leen di nuyu ñu nekk ci plateau bi. Mhm. Euh, maa ngi nii ñëpp ñu seetaan télévision Walfadjri di profiter ci occasion bi pour jaale bépp organe de presse et mhm. waa D-Média mhm. di kontaan aussi ci invitation bi moo xam ne dafa participer ci sensibilisation pour le cancer du sein tout à fait alors euh, euh, ci kanam ak jàmm docteur dinañu ñëw daal di jukki lu jëm ci rubrique santé mais en attendant dañuy topp Seydina pour la chronique des journaux alors Seydina gis nañ ne que actualité yi xaw naa Mm, bari tuuti et que de façon euh, varier également gis seen nekk que euh, am na fi ay variétés yoo xam ne ni faaw ñu wax ko Moustapha Ba wax na ci probablement dette bi nga xam ne nii ñu ngi koy gàll ci ndor du Sénégal fan la mën a yóbbu Sénégal ci wàllu économie L'As Quotidien ak moom la statué euh, Mamboy Diao aussi Mamboy Diao également moo nekk à la une bu Walf Quotidien peut-être c'est par rapport ak décryptage yu euh, grand format bi nga xam ne jël nañ ko ci Walf TV mën nañ ci peut-être ñëw euh, lu jëm ci euh, info yéeni kaay aussi saturé fu am solo muy wàllu cancer du col de l'utérus bi nga xam ne nii peut-être mën nañ ko occulter bàyyi un peu docteur mu wax ci bien vrai que tey dañuy def focus rek sur le cancer du sang mais on aura l'occasion d'en parler tout le mois d'octobre inchallah avec Mame Hadi Diéry Fall hommage à Momi Gaye nañ ci wax mais pourquoi pas aussi statuer ci yor yor parce que également moom mooy <laughs> journal coup de cœur du jour <laughs> parce que yooyu dafa fësal tey sunu ñaari euh, naataangoo yoo xamante ne nii on dit en salma mhm. que le journaliste doit être témoin de son temps li la intéressé si sa nekkin da ko war a dénoncer mhm. soo ko mënee dénoncer boo ko mënee wax nga wax ko à travers ta voix soo ko mënee dénoncer plume aussi nga bind ko et que vraiment je pense que Yoor aussi mu ngi ciy dox ñu teg ci nag ñaar ñu nga xam ne ay figure lañu ci mel ni Mame rapport ak électorat wu Amadou Ba mais bi ma ci gën a intérêt aussi bokk na ci Oumy Ndour bi nga xam ne jël na initiative pour signer benn pétition euh, comme quoi dañu war a lutter contre hausse abusive ci wàllu courant gi man pétition boobu su ma gisee dama koy signer xaw ma ndax yéen. ah vous êtes d'accord c'est à l'unanime. macha allah moom mm. moom taxawaayam rafet na ci réew mi. xam nga damay faral di wax ne. courant moom il faut euh, nit ku nekk da ngay am engagement pour sa société <laughs> euh, te lii soxna si def di soxna Oumy Ndour dañ mhm. koy rafetlu euh, gis nga soxna Aïcha mhm. gis nga dafa am loo xam ne ni il est mhm. que vraiment ñun Sénégalais yi ñu jëm koy xeex te mooy société yi fi nekk di yokk seen produit ci ndodd askan wi. Mhm. pour lan pour mën a duufal seen i poos euh, neexul ba neexul facture euh, sene rek. Mhm. bu fekkente ne société nationale on se pose la question mais société nationale bi moom ban façon société nationale parce que mën a nekk société nationale état bi daanaka di la jàppale ci fànn wu ne te chaque jour ngay ñëw di teg population bi fitna. teg leen fitna weesuwul chaque jour nga couper seen courant te boo couper seen courant bu noppi boo ko delloo si waatee nga yàq seen appareil te doo leen ko fay bu mukk ñaata père de famille wala ñaata responsable de famille ñoo ñàkk seen frigidaire ñàkk seen télévision wala ñàkk seen appareil électroménager ndax Senelec te pourtant dañuy dem di ko réclamer moo de ba dem réclame duñu la faale sax yooyu yëpp ñu koy muñ pareeguñu si ñoom ñu jël décision yokk seeni i facture courant démb ñu ngi ko fi doon wax am na ñoo xam ne nii tey ji compteur woyofal bi dama lay compteur woyofal bi rek compteur woyofal bi bu fekkente da nga doon dugal tey jii 5000 francs di ci am ay 40 kilowatts ak ñoom seen wala 50 ay 50 kilowatts. mu war laa yóbbu 2 semaines tey ji mënut laa ci semaine. cinq jours. cinq jours sax mun la faa yóbbu léegi. wallaahi eh, woyofal diisal. léegi woyofal nekkatul ñi nga xam ne ni actuellement dañu amee seen compteur yu ya ancien yi seen seen kii seen factures yu yi compteur yu bu ñu leen indilee facture dañuy yéemu ci yàlla ndax yokkute nga xam ne nemmeeku ko si. Hmm. présent li ci gën a garaaw te mooy fa la yabal bi tàmbalee duñ sax deñe def ab communiqué pour jéem wax ak population bi hmm. te ça ce qui est aberrant mhm. ndax mënuñu comprendre nga nekk ab société boo xam société nationale nekk ci biir Sénégal nga war a fournir électricité bu doy d' abord électricité boo xam dafay wàññi dafa dafay dafay wàññeeku ci population bi mais chaque jour nga di ko yokk te doo leen jox benn explication te j'avoue que ñu ngi doon xaar euh, organisation yi fi nekk tey wuyoo ay cons association consumériste yi ñu jóg wax ci mais aussi ñu ngi doon xaar suñu acteurs politiques yi ñu wax si. Mhm. gis nga boo gisee des fois may fustiger attitude suñu politiciens yi waxtu woo leen déggee rek ñu wàcc si mbedd mi naan ñu ngi manifester rek c'est parce que tout simplement seen carrière moo nekk en mhm. ndax te gis nañ ñu ngi jëm ci ay élections yoo xam daanaka biaisé nañu fichier électoral bi nga dégg na dañu wàcc si mbedd mi manifester. Mhm. wala nga jékki-jékki dégg leen ni am na koo xam dañ ko jàpp si ñoom nga dégg leen ñu ngi woote waaye Aïcha ba nga fi nekkee ba léegi parce que mës ngaa dégg rek ay acteurs politiques yu daje wax ne. njëgu dund bi cher na nañ wàcc ci mbedd yu manifeste ko. déedéet. moo tax may faral di wax ne mooy ñi nekk ci opposition bi ak ñi nekk ci nguur gi six ak neuf la ñoom ñëpp ci benn pot leen di dugal. Mm-hmm. parce que kenn ku ci nekk ci yow li la animé mooy sa intérêt bopp mais pas intérêt population bi. kese muy nag ñi nekk ci opposition bi muy nekk ci nguur gi kese ñoom ñoo yem amul ci kenn koo xam ne ni intérêt population bi la tax a jóg képp koo gis. mu yëngatu ci wàllu politique du lenn lan moo ko leen moom moo ko motiver mooy cadre de vie mu xool nu ma koy changer mais jéemuloo xool intérêt général bi et puis c'est ça ce qui est mm-hmm. est-ce que mun ngaa comprendre tey jii Sénégal ak fu mu toll tey ci wàllu euh, conjoncture conjoncture mm-hmm. dund bi ni mu yokkoo maara deytaal yi inscription yi ni mu yokkoo maara deytaal yi produit yi ni mu yokkoo maara deytaal yi facture ndox mi ni mu yokkoo maara deytaal yi facture courant bi ni doo dégg benn yoon ab acteur politique jël porter la combat mais finalement ay journaliste de surcroît ab jigéen. moom mooy jël porter le combat. te léegi tey ji nag bu ëllëgee bu ñu nee Macky Sall mu ngi ci tànk yi sàcc élection yi nga gis lañu wàcc ci bi ni manifester. Mhm. ñun aussi population bi ñu ànd ak ñoom ci loolu. et pourtant ñun bu nekk si ay jafe-jafe ñoom politiciens la ñu leen gis duñu leen dégg et puis ça c'est qui est mhm. xam nga Senelec bi c'est à démb yaa ngi koy wax. maa ngi la koy wax. léegi joxeetuñu facture. facture yi ñu ay facture estimée la ñu. dafa duñ te ba ñuy dem bay privatiser seen eau da yaakaaroon ne bu fi seen eau bu ñëwee jox eau de qualité mais eau bi ñuy jox maara day taali. et li gën a garaaw fu mu toll nii mooy arnaque bi nga xam ne waa seen eau ñu ngi ko def population bi imagine tey jii yow nga dëkk ci ab localité bu fel ne Dakar nga am fa sa kër. CNO waroon faraa mën a jëlaat ab tuyau su ko defee yow nga mën a fay benn cent trente mille bu fekkee branchement social la nga fay benn quatorze mille cent francs mhm. mais duñ ko def xam nañu def population bi dañ leen di imposer à ce que vraiment nañu def ay branchement individuel di leen estimer ay millions état bu Sénégal toog di leen seetaan ñoom c'est que on se pose c'est il faut ñu wax ñu ñun suñu suñ politi suñu politiciens ñoom ñoom ñoom ñoom lan moo tax ñuy politique quoi. suñu njiit gi d' abord. suñu njiit yi non non parce que li yëpp suñu njiit yi gis nga li ma lay xamal gis en 2011 2005 problème ay courant yi daf posé woon chaque jour xuy kamaj guddi ak ba ci courant di coupé. Mhm. ñoom président Macky Sall waxoon bu toogee dañu koy saafara bien que sax ay coupure courant yi xaw naa saaf wàññeeku même bu wàññeeku tamit tey le courant gën a cher. Mhm. et pourtant jamono ji mu nekkee ci opposition waaye ji kii mooy waaja c' est que c'est problème ak ñun suñu ak suñu ak ak ak suñu ak suñu yi c' est ku ci nekk ci opposition yi rek boo ko joxee constitution bu ko rëndalee da naan mara détaillé da nga naan kii yónanti la da naan ah non saa kii mooy waaja mais il suffit nga teg ko ci pouvoir bi rek mu changé complètement la mu doon wax da ko jël daal di koy teg fële nekk ci ay nekk ci ay moraada boppam soxlay population bi dañ ko relégué au second plan di dem seen seen mm-hmm. ji Sénégal yi doo dégg benn yoon benn acteur politique wala un homme politique porter le combat ne xeex population bi da wàcc ci mbedd mi ñu xeex pour que jafe-jafe yi nga xam yéen koy dudd mu dellu ginnaaw mais doo ko dégg mukk waxtu wala dégg ñu manifester rek jàpp nañ ab opposant waxtu dégg ñu manifester rek laal nañ ab fichier électoral waxtu wala dégg ñu manifester rek c'est parce que Macky Sall war naa def troisième mandat. Mm-hmm. mais doo leen dégg mukk ñuy manifester wax yokk nañ njëgu dund bi. Mm-hmm. Mm-hmm. dañuy jéem a campagne ñun ñun aussi ñu ñàkk fay toppar seen ginnaaw. di lekk suñuy caaf ak suñuy mburu di def semblant. Mm-hmm. comme si que dañoo bëgg askan non sérieux mm-hmm. ay images mm-hmm. saafal meer ay gerte. di amadu yi askan wi di dem ci taalibe yi di di lekkandoo ñoom. di séddale ay lu ne. <laughs> lu ne fekk li gëmuñu ko. nekkuñu fi lu dul rek bu ñu toogee sucer encore le sang des. des populations Antoine nañ ko muy toog di lekk mbaxalu yàpp <laughs> ak toogu sax si ban de a xaw def nii rek nee naa la nga bàyyi di cité tour tibb di lekk non mais image la moo xam ne ñu ngi koy gis ne dafa mel ni am na koo xam ne rek non moom la sax tekkaale <laughs> mbaxal te da ngay affirmé <laughs> di lekkaale mbax temps yi ci junj la jël de temps yi naan am na koo xam ne <laughs> mën na ko del junj rek fii wóorutul de mhm. fii wóorul de parce que aju saane teg nañ ko loxo dañoo yaakaaroon ne teg loxo bi jeex na foogoon naa lido bi jeex na mais ndekete jeexul de dañoo posoon jàppaan gi nag tey lay gën a wóor waaw yàlla bu yeboo daal nañu ñu koy teg seen tànk rek sëy naa mu doon wax naan c'est sans risque ah jàpp jeex na euh, Aïcha Aïcha <laughs> oui sëy il faut aussi ñu xam ne ne mhm. euh, dëkk bi kenn moomu ko. loolu la de vraiment di wax di tiit. c'est-à-dire que il faut il faut ñu xamal ni ñu jiite comme quoi que ne dëkk bi santul ba santul jaxate. Mhm. dëkk bi xamul nag ab république la kenn ku ne da am wàll. tout à fait. Seydina Omar Ba bu gisee lu ko metti seen dëkk bi da koy wax lay mooy ndeyu Seydina Omar gis lu ko metti dëkk bi wax ko nga jël ko di kasu pourquoi. wala say mbokk mais lan moo tax te jii ñu war a dissuader les sénégalais ragal loolu leen tiitloo leen ba kenn ku ci ne la nga war a wax doo ko wax yow mais quand même dañu waxante dëkk ci ban dëkk la ñu ne. il faut que les gens soient sérieux mais Seydina am na benn journal boo andi léegi benn journal boo andi léegi. Mhm. muy wax waxi Moussa Bokar Thiam muy woo journaliste yi à plus de responsabilité. mais mais pourtant waxam jooju mu wax ñun journaliste yi laxas xas de. mais mhm. pourtant ñun journaliste yi ñoo ko ñoo jëlaat suñu xalima bindaat ko def ko ci journal. à euh, la une ko teg ci. à une ko. c'est parce que c'est contradictoire waaw mais peut-être dañuy dox day joxe information rek. ah ay nga des fois des fois des fois nga jékki-jékki dem jëli ji ab élément. Mhm. waa ji di taxaw naan naan la naan la ñun suñu salaire dafa tuuti. Mm-hmm. amuñu IPRES amuñu IPM. Mm-hmm. nga teg ko. nga del teg ko. fekk na yow loolu amoo ko yow mi yow mi ko teg sax. <laughs> yaa gën a sonn ñëpp yaa gën a sonn ñëpp. waaw <laughs> ça ça faut le dire. loolu nga dékk micro. <laughs> léeg-léeg nga dékk nit micro. du rey sa bopp naan nii lay wax émission mm-hmm. ci ah, wax loolu mooy mais l' essentiel li am solo mooy. Mhm. il faut que gars yi nangu ne ñun en tout cas Seydina Omar moom man moom honnêtement bu ñu waxante dëgg su fekkente ne wax dëgg moom mooy tax mu dem kaso daa dem kaso parce que nit mënut a sa a ko waane man ba la nga xam ne war naa ko wax ci sénégalais war dugg ci bopp sénégalais bu duma ko wax. ci éveil de conscience rek nga ne waxoo fi dara. non dis war kenn waruñoo dissuader ci suñu liggéey. parce que nous sommes des mooy yoon. mais sénégalais bi ñu nekk aussi dañu am benn part boo xam dañu ko war a mën a jouer mais ñun dañuy rendre sax service état bu Sénégal. Mm-hmm. rendre service mooy di leen critiquer pour su defee ñu mën a góorgóorlu. mooy yoon mm-hmm. parce que président Macky Sall da lay ni tey même bu fekkee ne am na information yëpp joxuñu ko président am na fooy toll yenn information duñu la ko jox. Mm-hmm. moo tax damay faral ne ne ñoom dañ war a doon ay partenaire ci groupe Walfadjri mais pas ñu doon ay ñoo xam dañu am beneen bëgg du ñu xoolee groupe Walfadjri j'avoue honnêtement bu ñu waxante dëgg léegi nag maintenant le problème qui se pose mooy. Euh, li am li li li am daal am na am na am na. <laughs> yéen a may découragé yéen a may. bàyyi caaya ci kër gi nag. caaya a may bëgg sëñ bi yàlla bàyyi leen. yéen te il fait exprès de passer. il fait exprès de passer. dimbali ñu xaw ñu ko jëlaat. dimbali ñu ngir yàlla jëlal ñu kii. <laughs> guignol la guignol sa xarit la de. sëñ na maa ngi lay jaajëfal bu baax. dagg na sama waxtaan bi. dagg na sama waxtaan. war bu waree yéeg ci a bi ñu jël ko. Cheikh Tidiane Gomis naa ñàkk ci Walfadjri. Cheikh Tidiane Gomis ku ma ko naa ñàkk Walfadjri. Cheikh Tidiane Gomis. mënoon naa koy ñàkk. ama loolu. mënoon nañ ko dem mënoon nañu ko yóbbu. bu toogee dina fay. nit ba ko daay dafa créé bataille ak moom. Cheikh ma la daal boo nee ko xam nem dem na retraite. Cheikh daal dafa war a nangu retraite rek. mu dem noppal gi jox xale yi seen sens quoi. dese na ko ay at de. ay ñoom moom di jéy ak. dese na ko ay. Cheikh Cheikh moo ko prolongé rek. yaa tooñ ku bëri histoire. <laughs> émission yi ci jàmm. <laughs> moo jox chance xale yi Cheikh moo nar ñëw tontuwaat la sama hmm. émission yàqu. loolu <laughs> rek na jox xale yi chance quoi parce que moom dem na retraite. <laughs> moom du jeune talent moom. pas gentil. la rubrique santé. say mu ngi lay noteel lu baax. mooy pare muy tontu. la rubrique santé surtout.